ci sëñ Cheikh Bara Dolly mhm. ak ci Montane ñoom ñoo ñëw jamono ji ci bi euh, ñu teewlu ki nga xam ne moo di Moustapha Guirassy moom mu liiral ñu rek li nga xamante ni moo leen ci tax a jóg mhm. waaw jërëjëf ñoo ngi euh, nuyu bi yëpp di sant suñu euh, sant suñu président du parlementaire bi ma jox kàddu gi Euh, di sant tamit sumay collègue euh, Malick Guèye Mor Kane ak non inscrits yi fi nekkul yëpp ñëpp euh, jox ma kàddu gi pour ma wax ci turu député de l'opposition ak non inscrits yi li ñu dox tey ci suba si tànku jàmm la mooy xool de façon républicaine li ñu yoon may li ñu constitution may loo xam ni musuñu ko def Sénégal ñu def ko pour la première fois au nom de la paix au nom de l'intérêt supérieur de la nation posé acte boobu moom mooy des demande de suspension des poursuites contre Ousmane Sonko euh, constitution may nañu ko règlement intérieur ci article cinquante deux mu tamit ci constitution euh, article soixante sept euh, soixante quatorze ci sunu règlement ñun ñu visé article quatre vingt onze dix sept bi moo sànq Euh, di doon nag ñaan même député majorité yi ñu voté euh, projet bi projet de résolution bi ndaxte moom mooy jàmm réew mi moom mooy jàmm Sénégal euh, am na réew yoo xam ne ñu ngi bitim réew réew yoo xam ne souvent dañuy inspiré wu ci réew yooyu mu nekk ay réewu démocratie ñoom kat fàttali nañ ko plusieurs fois parce que ci deux siècles am na seize fois def nañu ay demande de suspension de poursuite ci seize yëpp assemblée am na ci ndam quinze yëpp accordé nañ ko waaw ñun nag même règlement intérieur moo ñu tënk ñu am même puissance même doole xam nga mbir bi dafay wone tamit puissance ak doole assemblée nationale assemblée nationale ci taw guerre assemblée nationale dafa am position dafa am taxawaay assemblée nationale justice moo mën a jël yenn loi assemblée nationale mën nañoo jël fii yeneen loi yoo xam ni euh, euh, euh, pour remplacer modifier loi boo xam ni wala décision xam ni justice mën na ko jël assemblée nationale dafa am doole dafa am puissance wante assemblée nationale bu tëdd buy nelaw jéye la danger la ci réew kon lii xëy na député yu bëri dañu xamul woon ni am nañu possibilité boobu pour introduire benn demande de suspension des poursuites contre Ousmane Sonko moo tax tey jii ñun député parlementaire de l'opposition des non-inscrits ñu bind ko ñëw bëgg ko jëbbal président euh, euh, euh, de l'Assemblée nationale Moustapha Niass lépp pare na député yëpp signé nañu ñu ñëw nar ko jébbal wante nag question responsabilité la ci lettre boo xam ne exposé des motifs nee nañu président bi ak nee nañu député yëpp nañu lu bañ a ragal ci jar ragal mooy sunu borom ak le peuple sénégalais mais soo ragalee loo xam ne yàlla may na la ko nga am sañ-sañ loi may la ko euh, sa règlement intérieur may la ko constitution may la ko nga mën a def suspension des poursuites te suspension ak arrêt des poursuites du benn arrêt bi ñun amuñu sañ-sañ googu kooku mbirum justice la wante suspension ba fin wu session unique bi kooku assemblée nationale dafa am sañ-sañ boobu ak doole googu waaw su dee yoonu jàmm la ñuy dox su dee réew mi la ñu bëgg a défendre ay intérêt su dee am na ay kilifa diine yoo xam ni yëkkati nañ seen i tànk yu sell yu tedd dem gis kilifa yi dem gis ñu ñun pour ne yéen ñëpp dox leen tànku jàmm te fekk ñoom ñi assemblée nationale am nañu les moyens légaux de poser acte boo xam ni sérénité dina mën a ñëw suñ ko deful dinañu wàcc suñu ànd moo tax ñuy interpeller encore une fois les députés les cent soixante cinq députés yoo xam ne ñoo nekk assemblée nationale pour une fois ñu bañ a topp consigne de vote pour une fois ñu bañ a topp ay logique parti pour une fois ñu mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation lii sunu sañ-sañ la wàccuñu jàdduñu koñ defuñu euh, euh, euh, nekkuñu di ab def benn jugement di joxe ay ndogal et cetera loolu du sunu cër wante sunu cër mooy ni demander la suspension des poursuites kooku am nañu sañ-sañ bi maintenant ba kañ moom mooy ba session bi jeex tel que stipulé donc ci article cinquante deux du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. mais déposé lan mooy topp lan la war li ciy topp moom mooy président assemblée nationale. jébbal ko commission bi ñu ko war a jébbal. ñu oo une plénière demander rapidement à aux cent soixante cinq députés ñu voté ñu nangu nañu. ñu suspendre euh, euh, poursuite yoo xam ni contre Ousmane Sonko la. délai yi ñaata lay doon. Euh, délai yi mi ci ñoom mooy tey jii defe naa am na urgence. Mm-hmm. réew mi yëpp moo soxla paix moo soxla jàmm. ñun suñu attitude ak suñu position depuis le début c'est une opposition responsable liñ ci wax ak liñ ci jiital constitution la ñuy wax ak règlement intérieur la ñuy wax jàmm la ñuy wax dëgg la ñuy wax loo xam ni moom mooy tabax dëgg moo tax encore une fois dignité parlement bi nii lañ koy mën amee parlement bu siggi parlement buy taxaw di mettre en avant l'intérêt de la nation nii lañ koy waxee encore une fois il faut que askan bi xam ni le parlement l'assemblée nationale dafa am doole dafa am loo xam ne lu bëri suñ ko joxee cër ak gëdd mu bañ a sëgg bañ a courber l'échine devant l'exécutif assemblée nationale am na lu bëri boo xam ne mën na ko saafara d'accord vous revenez waaw Fati. waaw Habib Habib Chérif. Habib Faye. ah